salaamaaleykum mbokk internet yi tey ji rek ñu dellu si waat di leen xamal li nga xamante ni mooy xibaaru d'actualité bu sunu làmb yu gën a fës si bis bi rek tombeel 23 décembre 2021 waaye nag xibaaru xibaaru làmb yooyu rek bokk yi su gën a fës nekkul a dara dul li nga xamante ni euh, mooy coow lu métti bu dox si diggante di nga xamante ni mooy euh, bombar wala sax bombardier ak Balla Gaye waaye nag Balla Gaye ak ki nga xamante ni euh, mooy ñaa a ginnaaw ba Boy Niang ñàkkee li nga xamante ni mooy combat am diggante moom ak Tapha Tine euh, si euh, dimanche bi rek ñu génn tombeek 19 décembre 2021 ba mu ñàkkee rek moom coow li bëri woon na loolu diggante moom ak Boy Niang ah, moom ak Balla Gaye numéro 2 dañoo war a bëri wala sax waruñoo bëri mu doon loo xamante ni amateur yi ak képp kuy sénégalais di dund li nga xamante ni mooy làmb nga si yàbbi si waaye nag bu ñu sukkandikoo euh, ki nga xamante ni mooy Mamadou Ali Ndiaye bi nga xamante ni ancien karaté la moom rek di coach bu Balla Gaye numéro 2 moom nag génn na ngir wax si li nga xamante ni euh, mooy euh, làmb ji rawatina si problème boobee di Balla euh, numéro 2 ndaxte nag ñu bëri nee nañ Balla Gaye numéro 2 dafa war a bëri ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro 2 ndaxte nga xamante ni mooy contrat rek moo leen boole kon rek ki nga xamante ni mooy Gaston Mbengue ba mu génn rek tontu ko kooku di Aziz Ndiaye naan ko rek mun ngaa wax lu la neex waaye contrat rek moo ñu boole ndaxte Boy ñaa ak Balla Gaye numéro 2 taxawal nañ ko ku ko taxawal nekkul kenn ku dul ki nga xamante ni euh, mooy euh, Gaston euh, production waaye nag Mamadou Ali Ndiaye di coach Balla Gaye 2 moom nag nee na ki nga xamante ni mooy dina doon adversaire bu gën a yomba daan si euh, combat yi nga xamante ni la euh, Balla Gaye jël si adversaire am yooyu rek nga xamante ni la euh, ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux ak doomu dégol boobee di Boy Niang nee na nag moom Mamadou Aly Ndiaye di ko su Balla Gaye 2 nee na nag Boy Niang mooy bi nga xamante ni mooy gën a yomba daan wala sax moo gën yomb si adversaire u Balla Gaye yëpp si ñeent adversaire yooyu rek nga xamante si nag ñoom contrat Boy Niang rek mooy mbër bi nga xamante mooy gën a yomba daan ndaxte ki nga xamante ni eh, mooy Boy Niang li mu wone rek si combat bi eh, ñu génn rek si dimanche bi passé moom ak eh, ki nga xamante ni mooy Tapha Tine ginnaaw ba bëree rek ak Tapha Tine moom Boy Niang rek bu doon góor la sax wala bu doon nit la dina delloo li nga xamante ni mooy avance bu ñu ko joxoon pour mu bëre ki nga xamante ni moo fi ne kon roi des arènes doon mbër boo xamante ni moo gën a naqare bëreel waaye sax mbër bu dàq bëri si làmb ji moom mooy papaay mbëri moom di sowee kàddu nag kàddu du Ndiaye Mamadou Aly la nga xamante ni euh, moom mooy coach bu Balla Gaye euh, numéro 2 nee na Boy Niang dafa war a euh, li nga xamante ni mooy contrat buñ ko lii woon moom ak Balla Gaye numéro 2 ndaxte loolee du combat Boy Niang amul sax yëngal ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 bu ñu sukkandiku si Mamadou Aly Ndiaye moom rek moo wax nit ñi mel ndaxte nee na lépp li nga xamante a dañ ko doon wax si doomu dëggal boobee rek di Boy Niang naan Boy a techniquement dafa xarañ waaye nag dafa mën a xeex loolu nag jamono ji rek dañ ko multiplier par zéro loolu rek zéro la nee na Boy Niang sax dafa war a jox ki nga xamante ni mooy Sa Thiès lii di euh, bu ñu sukkandikoo si euh, Mamadou Alé Ndiaye ba léegi moom nag nee na Balla Gaye numéro 2 moom mooy maître de l'arène moom mooy papaay ëmbër yi ndaxte li nga xamante ni mooy adversaire am yi dina leen tuur dina leen duma dina leen daan euh, benn par benn loolee la Mamadou Alé Ndiaye wax mu doon euh, peut-être boo loo xamante ni euh, bu ko ay adversaire am déggee rek dina doon euh, lu métti lool si seen si yi nga xamante ni moom la Mamadou Alé Ndiaye ay yëkkati ndaxte kat nee na adversaire yëpp dina leen daan benn par benn waaye nag du yem si daan gi rek dina leen duma ba ñu bëgg a dee mbokk yi bu fi jógee rek ñu wax si li nga xamante ni moo dox si diggante Bombardier ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 nga xamante ni dimanche bii di ñëw bu stop rek fii ca arène euh, nationale waaye nag dafa mel ni ñi nga xamante ni euh, ñooy mbokk Balla Gaye numéro 2 numéro 2 ñoom rek xam nañu li nga xamante ni mooy buy daan kii di euh, bombardier numéro 2 ginnaaw ba mu jógee foofee ca bitim réew ñu dóor ko rek mu daanu si ay 18 secondes ñoom rek fa lañ jàpp combat bi nee nañ kii di bombardier boo xoolee rek ay xeex mënewu ko te ñemewu ko benn yoon ndaxte kii di Elton wala sax kii di Tapha Tine daf fee jàpp bombardier da kaa dóor dóor ba euh, décision médicale la joxe li nga xamante ni mooy euh, victoire kooku di Tapha Tine ba Bombardier noonu la ñàkkee làmb ji kon Balla Gaye euh, numéro 2 rek foofu rek la war a sukkandiku pour am ndam le premier janvier diggante moom ak Bombardier bu Mbour doomu Mbour boobee rek nga xamante ni dañoo jàpp ni bu ñu xeexee rek moom Balla numéro 2 dina am ndam si digganteem moom ak Bombardier B52 ndaxte kat dañoo gis li nga xamante ni mooy Bombardier ginnaaw boobu defee ay xeex rek si combat yëpp yu mu mënti am xeex yooyu rek du si mujj am ndam maanaam rek kii di bombardier doo da nga koy jàpp duma ko a yu métti sokka daan fekkee mun nga ko daan fekkee mun nga ko daan na dóor yi bëri rek bu dóor yi bëri rek mun na ñàkk combat boobu par décision médicale loolee la ay mbokk boom Balla Gaye numéro 2 euh, yëkkati euh, teg ko si ndoddal ki nga xamante ni mooy euh, bombardier mu a doon combat boo xamante ni combat bu ñëpp di xaar la si diggante bombardier ak Balla Gaye numéro 2 ndaxte kii di Bombardier moom sax moo daanoon kii di Balla Gaye numéro 2 mu jël li nga xamante ni mooy couronne roi des arènes bi si kaw doomu géejawaay boobu la Lion de Guédiawaye kon nañ jàpp ne rek bés buy ñëw si jour combat boobu rek si dimanche euh, bi di ñëw euh, bul si topp moom euh, Balla Gaye numéro 2 dañu jàpp ne day xeex ak ki nga xamante ni mooy Bombardier ngir mën a am li nga xamante ni mooy ndam le premier janvier 2022 mu doon événement boo xamante ni mu gëj naa am si li nga xamante ni mooy làmb te premier janvier rek da ci doon lemeeku ay làmb yu neex a neex waaye nag kii di Gaston production moom rek indiwaat na ko diggante kii nga xam mooy euh, bombardier bu Mbour ak Balla Gaye numéro 2 kon mbokk yi jàpp leen euh, Balla Gaye numéro 2 bu écurie euh, Balla Gaye numéro 1 ak bombardier bu Mbour montagne dinañ laale le premier janvier 2022 bii ñu dëgmal ñu jeexale ko si li nga xamante ni mooy affiche bu doy waar loolu nga xamante ni ku ko dëgg nekkul kenn ku dul promoteur boobee rek di wuyoo Sidi Diakhaté ndaxte dokk promoteur yoo xamante ni day génne waat ay révélation ginnaaw ba mu tëggee ki nga xamante ni mooy Tonnerre ak Laye Pythagore combat boobee rek ñu nar ko amal ci stade Iba Mar euh, mu doon loo xamante lu amateur yëpp di xaar la kon mbokk yi li moo seen xibaaru tàggat yaram rawatina sunu lamb bu xib bu bés bi rek tombé 23 jan 23 décembre. deux mille vingt et un